rage feebaru say bi faral di dal xaj yi mun na jàll ci nit yi ci matt yi ak mar yeneen mala mun nañu it joxe feebar bi maanaam muus yi golo yi ak tiila yi feebar bi du feeñ ci saas ji après matt matt bi mun nañu toog ay fan wala ay weer bala mu dikk bu xasee dikk kenn mënatu koo faj ngir moytu rage feebaru say ñàkk leen mala yi ngeen dëkkal maanaam xaj yi muus yi golo yi moytu mala yu ñu ñàkkul su fekkente ne xaj matt na la raxasal góom bi ak ndox ak saabu te demal ci saa si ci lu mu gën a gaawee ci bërëb fajukaay bu la gën a jege.